aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin fa hamdan liman fi samaai ila wa fi l ardi ila wasalatu wasalaamu ala man usriya bihi layla sayiduna wa maulana muhammadum man naa la maa naa la nayla wa ala alihi wa ashaabihi gurri lmuhajjalin wa summi lmubajjalin musaahidiya al awfiya min talfadatikum almufaddala télévision Futurs Médias nuxayikum bi taxit al islamiyya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias nuyu leen waaye itam ziar leen ndokkee leen bu baax a baax ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ni moo am jàmm am salaam sutura àddina ak àlaxira yal na yàlla dolli nu ko defal am mbégte loolu nag ñu ngi fii ci Makkatal Mukarram waxoon naa la ak télévision Futurs Médias dara du leen ump ci aj gi nga xam ni mi ngi am euh, fii ci euh, Baytil al Haram mbokk mi noonu xam nga bërki démb la ñu bàyyi ko ca Madinatul Munawwara jàkkaarloog borom barrière or ba gis nga télévision Futurs Médias tabarakallahu seen liggéey bu rafet lépp ñu ngi ci ànd ak di leen ko war ku lu ziyaar yi nga xam ni euh, groupe bi defoon nañ ko ca. Makka Medinatul a gis ngeen Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bareeru or ba maa ngi ñaan ñi nga xam ne demagunu yal na yàlla yóbbu leen waaye ñi dem ba noppi bëgg a dellu ñoom itam dañuy bëgg dellu sax yal na yàlla yóbbuwaat ñëpp ndax foofa ku fa dem yëg ni borom tëraay bu njëkk bii tëraayam bi moom rasulullahi ndam kese la télévision Futurs Médias dañu ànd ak yéen ñi dem ci Seydina Muhammad wan leen ko waaye bàyyikoo nañu fa dem ba euh, Uhud nga xam ni waxoon naa la ni la 70 général yi nga xam ni fa la ñu daanu euh, ka ko jiite woon di Hamdatu ibnu Abdul Muttalib nga xam ne Abdul Muttalib moo ko jur bokk Abdoulaye benn baay euh, ndax Seydina Muhammad Abdoulaye mi ko jur ñi mu bokkal ndey ak baay ñii ma lay bëgg a wax la Abdou Kaabata Abdamanaf ma Zubayrin Abdillahi fatimata barata bayda atika ak arwa ño ñoom abdoulaye mi jur si dina mouhammad ñu bokk ndey ak baay waaye yëmul ci loolu moom yonent bi alayhi salatu wasalaam hamzatu moomu nga xam ni euh, baay tëxam la bàyyi taxam la Abbas it bàyyi taxam la nga xam ni Abbas mi nga xam ni moo euh, mook Abdoulaye mi jur Seydina Mouhamed ñoo bokk ndey ak ñoo bokk benn baay moom itam mujj na tuub dugg ci diine l'islam ndax ginnaaw Badar euh, la Abbas tuub keroog bi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam digal saxaaba yi wax leen ni ñi nga xam ne jot ñu leen rey jàpp leen ay prisonniers ginnaaw xare ba Badar euh, yonent bi dafa tëdd ba guddi rek dégg luy onk moom Seydina Mouhamed loolu nag oh kàddu gi fort. bis si gina Muhammad déggee luy onk dafa yónnee ne xoolal leen ma kii onk ku mu doon ñu ñëw ni ko sa baay Abbas la ca mbaa xam nga moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni sama baay la sama deret la ndax mook sama baay bokk bàyyi dem leen ngeen tekki ko waaye bu leen yem rek ci tekki ko na ngeen tekki waale mbooleem koo xam ni jàpp nañu ko prisonnier yeewu ko tekki leen ñëpp da ngeen laaj leen ku mën a fay xaalis nga fay ñu bàyyi la nga ñibbi dellu mag ñëw ci Abbas wax ko prisonniers yi fa nekkoon ne fay leen su ngeen fayee yonent bi nee nañu bàyyi leen ngeen dem temps ngeen di fay Abbas ne man aw ma dara ñu ne ko may nañu la nga dem ba Màkka boobu arab ñoom xamuñu woon wax lu dul dëgg ñoom jàpp nañu ne nit lu mu wax rek dëgg la ci moom waaye booba ñi àndoon ak Sayyidina Muhammad di jullit ñi dañu wax Abbas ni ko si signal nga d'accord ni boo àggee Médine di nga fay xaalis bi yónnee ko Abbas ne aw ma dara am nga loolu denc mu ne dencu ma dara ñu ne ko nañ dem ci sang bi abbas ibnu abdul mutalib jóg ànd ak saxaaba yi ñu ñëw ci rasulullah yi waaye mu xool sayyidina muhammad yëg ni jëmm ji lu bind mooma yonent bi jàkkaarloog moom ne ko bàyyi li la saxaaba yi wax def ko fayal ñu bàyyi la nga dem mu ne ma dara mu ne ko waaye nee nañu mën ngaa dem ba makkatal mukarram nga daal di fay daal di ko yónnee abbas ni aw ma dara nabi ne ko bàyyi amoo loo denc mu ne ko dencu ma dara keroog la ko rasulullah yi wax ni ko ay papa yow nga ne amoo loo denc mu ni ko dencoo ma benn dërëm mu ni ko bàyyi bi ngay ñëw jëloo benn mbuus def ci xaalis yaa ngi ko takkee morso bu xonq yaa ngi ko jox sama tante diw ne ko dencal ma ko su ma ñëwee nga delloo ma ko mu ne ku la wax loolu Abbas ne ko ku la wax loolu mu ne ko ki ma ko wax mooy ki ci asamaan juróom-ñaar mu taw daanu tàllal suufi juróom ñaanam too banku di borom bi subhanahu wa taala ne ko ba ma koy dégg sa tanta mam maa ngi moom donga fa ba ma koy fas kenn fekke wu ko kon yow la yàlla yónni ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi abbas moomu moom itam tuub na dugg ci lislaam moom abbas ibnu abdul di bàyyi taxu rasulullahi jaafar as-sadiq moom itam tuuboon di mbokk si jona Muhammad dugg ci lislaam waaye Hamdatu ibnu Abdul Mutalib gis nga télévision Futur Média wan nañ lëkkalu ziar bi nga xam ne keroog xare Uhud nekkoon xare boo xam ne xare bu jéggi dayo la nga xam ne yonent bi bi mu nekkee màkka xeexul waaye bi mu génnee màkka ndax dëkk bii ñu nekk dañ ko génne bi mu amee juróom fukki at ak ñaar 52 ans am ñu wax 53 ans waaye bi 53 ans yi dugg ca la génn makkatal mukarram dem dugg ca madinatul munawwara 11 ans la fa def mu dund 63 ans moom rasulullah waaye ci 11 ans yooyu ci la réglé adduna bi moom sayyidina Muhammad wax la waxoon naa la ko ca la xeex ñaar fukki xare ak juróom-ñaar ca la yónnee moom sayyidina Muhammad ñeent fukki xare ak juróom-ñaar waaye xare bii di xare Uhud mbokk yi keroog la yonent bi benn yoon la mës a rey ci loxoom nit mooy ubay ubay mu xalaf nekkul nit ko bon nekkul ku bon koo xam ni bokkoon ci ñi gën a bañ rasulullah moom ubay ñi ko gënoon a bañ waxoon naa la ko xaaris ibnu nadr ca la bokk walid ibnu mughira ca la bokk aboo jahlin saay saay ba ca la bokk ndax mi ngi dee badar keroog bi muy dee di sukuraat la ni gaa yi kaay mu yónni leen gaaw bu ngeen demee ngeen ni muhammad ibnu abdullahi maa ngi nii dee waaye tey laa ko gën a bañ aswad ibnu abdul yaguus si ña ko bañoon ci la bokk di cousin baayam ak Abdoulaye Rouge ak Amina mi jur Seydina Mohamed bokk ndey ak baay Aswad ibnu moom itam bokkoon gën a bañ Seydina Mohamed ak ku ñuy wax Rukaanata moom di bari bari woon doole njooloon nekkoon mbër moom moom Rukaanata bañoon Seydina Mohamed Abu Lahab di bàyyi tëxam moom itam bokkoon ci ñi gën a bañ rasulullahi mbokk yi Hamzatu ibnu Abdul Mutalib keroog mi ngi daan Uhud bokkul ak Jaafar as mi daanu xare mu'tata keroog nga xam ne ñaari xara yooyu buntu kër gu ne Seydina Muhammad taxaw na fa ndax borom kër ga dee na Hamza moomu gis ngeen ku lu ziar boo ñëwee ca Madinatul Munawwara daañu la yóbbu ku lu ziar nga xool soixante-dix généraux juróom ñaar fukki général yoo xam ni keroog oxot la ñu daanu fekk yonent bi xare ya mu def tam di gañe fekk ab waag dàq na leen gañe leen bu buwaatul mu gañe leen dàq leen Usayru mu dàq leen xaswatu Safar mu dàq leen gañe leen badru xital mu gañe leen sulaymi mu gañe leen xaynuqaa mu gañe leen sawiix mu gañe leen ratafaan mu gañe leen dàq leen buxraan mu dàq leen xamra mu dàq leen nadir mu dàq leen riqaa mu dàq leen mawid mu dàq leen dóomatu mu dàq leen muraysiya mu dàq leen ahzab mu dàq leen xudaybiya mu dàq leen taif mu dàq leen tëboog mu dàq leen xandax mu dàq leen mu sayyidina Muhammad mbokk yi ñu ñëw oxot ñu gañe ñu perte xare ba te booba lislaam ba ñu ngi tàmbali am yaakaar jullit ña tàmbalee am yaakaar fekk yàlla dafa wax Sayyidina Muhammad ni ko Mamadu mu ni ko naam mu ni ko naa la dimbali naa la jàppale naa la ubbi ubbi gu bir yow rasulullahi mu ni ko naa la jàppale naa la ubbi ubbi gu bir inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma taaqara wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka allahu nasran aziza mbokk yi ñu dem xare boobu di xare oxot gis nga alaaj maa aussi sa vieux wan leen ma montagne bi mi ngi noonu oxota ngoog montagne baa ngoog mi ngi noonu boo ko séenee nga xool nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa waxoon saxaaba yi ne bu leen wàcc fële maanaam doxalinu xare ki ko dàq ñëpp mooy rasulullah yi waaye boobu saxaaba yi bu ñu dem xare bu ñu gañee dañuy dem ku alal jañ ñu gañe am ñu nangu ko amoon nañ ci droit ñoom ñu yaakaar ni jullit yéefar yaa ngay daw fekk boobu Xaalid ibnu Walid nekkoon gaynde gol nekkoon jàmbari fëkk tëdd waaye nekk yéefar bokkoon ca bi Xaalid gisee jullit ñu wàcc rek dafa rëppatal fasam gestu gaañu woo leen ñu topp ko Xaalid wiiri yëkkati ko montagne ba taxaw tiim jullit ñi di fet di faagaagal di faagaagal di faagaagal keroog wax su mi nga xam ne Hind bintu Utba moo ne ko boo reyee xam Hamza ma goreel la parce que Utba mi jur Hind wa Hamza moo ko reyoon reyoon fereeram mu ne ko boo ma reyeelee Hamza ma goreel la jox la alal wax si di entraîné ba am kattan di jàng fett di jàng fett ba mu wóor ko ni mën na ko keroog Xaalid ibnu Walid moo tax ñu perte xare ba waaye kat daaneel Hamzatu ibnu Abdul Mutalib mooy Wahshi mbokk yi moo tax yàlla xoolul départ yàlla li muy xool mooy arrivé nit mën na nekk ci lu bon di wax lu bon di nekk ci lu bon di def lu bon mujj nekk wëliyu moom tuub dañ koy gaawee waaye Wahshi bi mu rey Hamzatu ibnu Abdul Mutalib ñëw tiim ko di ñëw tiim ko dafa jël paaka xotti dënd ba génne xool ba yëy ko. ba ci Seydina Muhammad mu buusu ko xoolu Hamdatu ibnu Abdul Mutalib keroog yonent bi ronqañam tuuru na waaye mu yëngal bopp ba saxaaba yi ni ko lu xew mu ni li ma jaaxal mooy deretu Hamza dugg na ci biiram te deretu Hamza ku mu dugg ci sa biir mënoo dem safara waaye keroog bi yënd leer bi ko duggee lis leeruk l'islam dugg ko muy ñëw pour tuub si yonent bi def ko dum mooy yàlla na ko attention waxal nag waaye l'islam bi mu muloo ko yënd ñëw daanu ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka waaye ñu ñibbi wax si moom it mii rey Hamza leer ga dugg ko wax si mii ray Hamza keroog ca Uhud moom it tuub na dugg ci lislaam moo tax daan na wax ni maa ray bàyyu ki gën ci nit ñi waaye maa ray ki gën a yées ci nit ñi ndax wax si mi ray woon Hamza moo rey mu ray Musaylamatul Kazzaab mi daan wax ni yonentu la moom Musaylama ki ko ray mooy wax nga xam ne musaylimatul kazaab dafa amoon ay saxaabaam amoon ay waykatam daan wax ni moom yàllaa ko yónni moo tax amoon na waykat bu ko daan way naan ko euh, sumita bil majdi yabnal akramayni aban wa anta xayrul la zilta rahmana fa waykatam ba ko sumita tuddeef na la bil majdi di tedd nga yabnal akramayni yow yow ñaar yow ñaari doomu ñu tedd ne wa anta xayrul wara yaa gën ci mbindeef yi ladilta rahmana loolu mu waykatu mu kazab moo ko wayoon xam nga kii jay na ko yonent bi ñu nettaliku ko mu gëstu xasan xasan ibnu thabit nekko ko tontu ko ci même baxru xasaan ni ko summita bil qubsi yebnal axbasayni aban wa anta charrul wara la zilta shaydaana la zilta shaydaana ne ko kii kay so bul ni tedda nga lañ ko tuddee kii kay sobee lañ ko tuddee ndax kii tëkkaleeg boppam rasulullahi kii xamul lu xew yàlla yow waaw la zilta shaytaana sa saytaane gii nga nekkee wóor na saytaane mooy sa baay yàlla boo ci deñ moom wax si moomu moo rey mu Musaylamatul Kazzab mbokk yi Hamza daanu na keroog Uhud juróom-ñaar fukki général daanu nañu keroog Uhud problème am keroog nga xam ni buntu kër gu ne xam ne taxaw na fa ndax boroom kër ga dee na saxaaba yi ñëw ci rasulullah yi ne ko lu xew lu xew xanaa du bërki démb la la yàlla wax naa la dimbali naa la ubbi ubbi gu lii ñu dal lu xew yàlla jibril demal jibril ñëw ni ko asalaamaaleykum ya rasulullah yàllaa ngi lay nuyu mbaa yëg nga ni ngi lay nuyu sa waa ji rek ka daan dégg rasulullah yàlla nee na wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naasi yàlla nee na bi bis yi dafay wëndeelante bis bu nekk ay ak ñii moome waaw bërki démb yaa moome li mel na la xara yi yaa gañe waaye tey nag ñii ñoo moome donte ay yéefar la ñu ndax alxalqu kulluhum iyaalullahi mbindeef yëpp njabootu yàlla la ñu mbokk yi Xaalid nag mi tax ñu perte xare ba ñuy xool moom parce que Xaalid jàmbar yi fëkk tëdd la Xaalid ibnu Walid yàllaa ko bindee woon mu nekkoon di ko am taxawaay waaye nekkoon di ko taaru moom Xaalid ibnu Walid moom la Seydina Muhammad yónni woon ci kati ci bani Kaab ibnu Najjar ne ko woo leen bu ñu tuubee woo leen benn yoon bu ñu lànkee nga bu bul xeex ak ñoom deuxième fois bul xeex ak ñoom boo leen woowee ñetti yoon nag bu ñu lànkee nga door xeex ak ñoom ca bani Kaab ibnu Najjar waxoon naa la ko moom Xaalid ibn Walid keroog la ñu ko ne ko ne pour ñu tuub sif la na saaxibaka melal ñu sa waaji nu mu mel mu ne xool leen ma sama taar sama personnalité ndaw lu ne darajey ko ko yónni la yore inna rasula bi qadri mursili waaw dara waaw inna rasula naka ndaw bi qadri mursili darajey ko ko yónni la yore waaw mu tax sama Maodo teg ci ni ixtakimi na nga xereñe na nga xereñe bokki nga xool boo duggee ca Madinatul Munawwara def ko lu ziyaar yooyu ñu jóge fa dem masjidul Xubaa dem masjidul xiblatayni borom ñaari xibla ya nga xam ne bu ñu daan julli dañ daan eh, jublu Jérusalem ñuy dem yàgg yàlla ni fa wala wujuhakum satarahu wëlbatiku leen seen i jëmm jëm masjidul haram te muy makkatal mukarram muy masjidul xiblatayni jàkkay ñaari xibla yi gis na télévision Futurs Médias ànd naag sunu pèlerins yi ñoom ñëpp dem ziyaara ji leen waaye buñ fa jugee noona dem nañu masjidu xubaa xam nga xubaa ziyaar kooku ñu koy ziyaar Seydina Muhammad dafa julli te masjidu xubaa fa la bi njëkkee julli jumaa julli jumaa mi ngi ko dabee xubaa yowmal arubati jëllal badru tudrikuhu salatuha waaw masjidu xubaa fa la sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli jumaa ma ngi ko dabee woon ca masjidu xubaa nga xam ne pèlerin yi dañuy daw yëg ni yonent bi alayhi salatu wasalaam julli na fii ñu def fa ñaari rakka ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dolli ñoo xiir ci boppam waaye sunu cofeel ci sidina Muhammad gën a yokk waaye keroog bi yonent bi ñëwee cérémonie ba première julli jumaa ga cent personnes la ñu cent personnes deuxième julli jumaa ja ñu dem di julli jumaa matuñu quarante personnes ñu ni pourquoi xanaa l'islam bi daa wàññeeku ñu ni non première bi li tax mu nekk cent personne dafa amoon ñu jógee ci banlieue ba di ay jullit doon teeru si rasulullah yi julli jumaa fekk leen fa ñu jullee noog moom jumaa deuxième julli jumaa ja ñu ñëwoon premier ba dañu ñibbi seeni kër looloo waral deuxième julli ji matuñu cent personnes ñu tabax kon xaddu xaddi taxawaayu nit ca la jumaa ja nekkoo woon noonu ñu dem ziyaara ji masjidu xubaa lépp loo xam ne bu ñu fa jógee nag ziyaara ji armeel ya nga xam ni boo jàkkaarloog Sidina Muhammad sa kanam xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga toog ci wetam ka fa tëdd mooy sayyiduna sayyidina Bakarin Siddiq radiallahu anhu bakar du coobara kenn tax bu tëdd foofu loolu lañ fa nit ñi xam ko Sidina Bakar dafa nekk ci sukkuraat woo Abdullahi ibn Bakarin doomam ni ko dama bëgg su ma deewee waxal yi midin waxal jullit yi ni leen su ma deewee nañu jàpp sama jaag buntu ba kànnaar ba fa ne bu ko kenn ubbi teg leen ma ci buntu xabru rasulullahi bu kenn ubbi nag wax leen ni soppee moo bëgg a fekk si soppeem bu fekkee bunt yi ubbeeku nañu seen mbopp ngeen dugal ma suul ma ci wat rasulullahi su bunt yi ubbeekuwul ngeen yóbbu ma baqee fa ñuy denc ñëpp jullit ñëpp yëg loolu Abubakar dee na sang nañu ko sang nañu ko jàpp julli nañu ko ña ngi ko jàpp nag jël jàkki teg ci buntu xabru rasulullah ñu ni soppekat moo bëgg a fekk si soppeem ñu dégg benn kàddu bunt yi ne ci ubbeeku bunt yu ñu kànnaar korose ko kànnaar ko tëj bunt kànneeree toj kànneer ya naaw bunt yi ubbeeku ñu dégg kàddu ci kaw mu ni dammal habiba ilal habibi tàppe leen xarit ci kaw xaritam tàppe leen soppe ci kaw soppeem ndax altine la yàlla yónni rasulullah Abubakar tub talaata ba ñuy génn Màkka Moustapha pi Abubakar 2 ba ñuy dugg Medine nabi pi Abubakar 2 keroog xare Badar nabi fii Abubakar fii bu ñuy dekki njool Màkka yi njëkk a jóg Abubakar 2 bu ñuy dugg aljanna nabi pi Abubakar 2 ñu dégg kàddu ñu ni tàppe leen xarit ci kaw xaritam ñu jël Sidna Bakar suul ko ci wat rasulullahi waaye na Omar dafa nekk ci sukkuraat avant booba ñaanal na ko Aysatu ne dama bëgg suma ma deewee ñu suul ma ci wat rasulullahi Aysa ne ko baax na dégg naa ko Sidna Omar nekk ci sukkuraat yónni doomam ne dama bëgg ndax laajal ma Aysa ndax mën nañ maa denc foofu Abubakar Aysa ne waaw bis bu fi bàyyi ko daañu ko fa denc foofu Omar dem ñu denc ko fa war a yumma Aysa sunu yaay Sayyidatuna Aïcha bi mu génnee àdduna ñu yóbbu ko Baqiya parce que Aïcha dafa waxoon ni bu fekkoon njool màkk rek moo fi nekk su ma deewee mën nañ maa suul ci wetam ndax sama ko borom kër la wala sama baay mën nañ maa suul ci wetam ndax sama baay la waaye comme ko Omar ñëw na amatuma droit ñu suul ma fii ñu jël Seydina Omar suul ko euh, Seyd Sayyidatuna Aïcha ñu jël ko yóbbu ko Baqiya Fatimata bint Rasul ma nga Baqiya ziar ngeen ko Seydina Ousmane ma nga Baqiya Assane ma nga baqe a mi nga xam ne Sina Alioune moo ko jur ak Xuseynu doomu Xasan ma nga baqe a ak lenn ci saxaaba yu baree baree bari ñoom it lenn ya ñu nga baqe a ndax ginnaaw Sayyidina Muhammad am na saxaaba yoo xam ne dañu génn Makka dañu génn Midine Sina Alioune ma nga Kuufa euh, Bilal Ibnu Rabah dafa génn Midine saxaaba yu baree baree baree bari ñii am na ñoo xam ne ñu nga Chine. am na ñoo xam ne ñi nga ci yeneen réew ba ñu génne àddina ñu denc leen fa ndax ginnaaw Seydina Muhammad dañu génn Makka am na ñoo xam ni wax Bilaal daan na wax ni mënatuma noddu ndax daraan nodd bu àgg ba ci ashhadu an laa ilaha illa allah daal di jooy du ko mën a àggale Bilaal ibn Rabah daal di continuer yoonam mbokk ñu génn Médine ba ngay li tàqalikook rasulullah yaa ngay jooy ndax bi nga ñëwee jàkkaarloog borom bari or ba ñu wax la ki tëdd fii lu yàlla bind mooma ay bi nga ñëwee yëg nga tëdd fii yàlla teral na ko de yàlla nee na ko sama ngëneel sama teraanga xaw ma ku koy miim waaye du yow rasulullahi yàlla ne sidina Muhammad sama ngëneel ak sama teraanga jox naa la ko ba mu doy wa kaana fadlullahi alayka azima bind naa mindee fi yaa ma ci gënal wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla ni sayyidina Muhammad xar naa sama weeri ndax yow doomim sama teraanga wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla ni sayyidina Muhammad caabi aljanna ëllëg sa loxo laa koy teg soo duggul aljanna mu aram ci mindeef sa xeet wi bu ñu duggul aljanna mu aram ci yeneen xeet yi kon doomim sama teraanga wa kaana fadlullahi alayka azima du ma ci yem ak yow drapeau bu nuy wax yow alhamdi mboolem yonent yi ku ci ne dana bëgg ma jox ko ko waaye sa loxo laa koy teg wa kaana fadlullahi alayka azima bi nga ñëwee jàkkaarloog borom barrière or ba ngelawal chimal upp la parce que bunt yi dafay ubbeeku waaye di nga yëg seddaay boo xam ni di nga yëg ngelawal chimal loo xam ni bi nga juddoo àddina léegi musoo gis piixaay bu ni mel amul fuddul rawdu rasulullah mbokk yi nga jàkkaarloog borom barrière or ba nga nuyu ko asalaamu aleyka ya rasulallahi asalaamu aleyka ya habiballahi mu fay la jug toog ca toogaayam ba ndax bul fàtte ni alt guddik altine ak guddik aljuma Seydina Muhammad ma ngay récupérer dossier jaam ñi indil borom bi subhanahu wa taala ne ko yàlla lii dey Pape Hann la baal ko yàlla lii Maawo Siise la baal ko yàlla lii Vieux Diouf la baal ko di jël kenn ci soppeem mi kenn ku ci ne mu lim la ne yàlla jéggal ko bis guddik altine ak guddik alxames tuubaanu amaluna yowma alxamisi lahu wa yowma liseyni fistighfaari zil juróomi sama Maodo wax ni tuubaanu def na béral amaalu naa suñuy jëf ñu ne kañ si mu ne yowmal xamiisi guddik altine wa yowmal isnayni ak bésu altine ak guddik altine fistighfaari zil juróomi muy jéggalul borom ak tooñ yi moom rasulullahi moo doon jël màkk noppalagul ba léegi may wax ak yow boo ko nuyoo mun la ah ñëw nga. ngi am na ñoo xam ne nag buñ ko nuyoo bu leen di fay daañu ko dégg am na yàlla am na ñoo xam ni am na ñoo xam ni bu ñu agsee ci raw doom ba dañuy jàkkaarloog rasulullah yi am na ñoo xam ni bu ñu ko nuyoo fay ga leen di njool màkkay fay ñu ngi koy dégg yàlla ñàlla boole ca ñooña nabi fay la xool tuuti ci a Abubakar tëdd foofu Sidna Omar tëdd noonu nga nuyu leen mbokk yi nga defee sa kulu ziyaar ca madinatul munawwara fan ya nga fay am nag yaa ngay waajal aj gi waaye buy génn Médine doo doyal pour génn ca Madinatul Munawwara xam nga climat bi nekk Màkka bi nekk Médine moo ko dàq jaww Màkk jaww Médine jaww Màkka ko dàq wax naa la bul fàtte ni keroog bi Seydina Muhammad ñëwee ànd ak Seydina Abubakar dugg ca Madinatul Munawwara ba ñu ko teeroo Abubakar dafa xëy si buru pali pali pali bu metti si buru ca suba ga Bilal ibnu Rabah si buru amir ibnu fuhayrata siburu ba ñu yaakaare ñii dañuy dee di wàccu siburu sibiru bu métti ndax changement de climat bi boobu midin moo gën a tàng màkka ca la sayyidina Muhammad ñaan yàlla sallallahu alayhi wa yàlla jël climat bi nekkoon midin sànni ko dëkk bu ñuy wax jox fa indil midin beneen climat boo xam ne moo dàq makkatal mukarram jaww ja na mu teeyee këfa tëdd ca mbaa xam nga na mu teeyee a yi boo ñëwee xam ni kii tëraayam bii ndam kese la ña ko bañoon booy wax ci ñoom da nga na laanatullahi alayhim ña ko bañoon booy wax ci ñoom jëppite ngay waxee ci ñoom wala fàtte nga leen ña ko bañoon tey am nañu gàcce waaye boo ñëwee xam ne jëmm ji tëdd fii di nga yëg ni tëraayam bii ndam kese la di nga yëg ni yiw yëpp fii lay bale nga ne la teraanga ku ko am yaa ngi ko amee ci jëmm ji tëdd fii ayaa man baal xayraati yaa sayyidal wara ki nga xam ni mooy balluwaay yiw yi moom rasulullah yi waaye mooy sangu ñëpp um sayyidina Muhammad mbokk yi yàlla kat rasulullah doon ko ñor mag ñi wax ni cere njaboot soo ci bëggee da nga naan doom ja yangu xam nga loolooy lan mooy ku ne bëgg na yàlla bëgg la yàlla ni sayyidina Muhammad waxal gaa ñi ni bu ñu bëggee man yàlla ma bëgg leen nañu la bëgg topp la yow rasulullah xul in kuntum tuhibbuna allaha jëlal sa baaraam teg ci sa dën nekk bu ko qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni bu ko defee rek yuhbibkumullah ci grammaire arab loolu sart la ak jawaab sart la ak jawaab yàlla nee na su ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen ko te topp ko moom rasulullah nga génn makkatal mukarram sa xol a ngay bëgg jooy say bët a ngay jooy ah ca nga génn Medine yaa ngay bëgg a génn mi ngi ko ziyaara def sa kullu ziyaar sa xol a ngay tooy. yaa ngi koy tàggu la sunu maam Xëri Turi radiyallahu anhu waxoon bi mu ñëwee ba ziyaar ko bay bëgg a ñibbi mu ni suma salaatu maa ngi dem waaye xol bi des na fi yow allahu akbar maa ngi ñibbi maa ngay dem màkka walla maa ngay ñibbi waaye sama xol des na fi yow rasulullahi jëmmay soree jëmm mooy sori waaye xol moo takku mu wóor waaye sama xol bii mi ngi ci yow rasulullah man waykatu mu demee sax di ko wax a wax a wax wane cofeelam jooy na lu ne def na ko xam nga lu mu mujj wax dañu daal yàlla mi nga xam ni moo ma gën a jege sama buumu xol yàlla xam na ni bëgg naa la allahu akbar wallahu yaalamu ba mu yàgg ne wallahu yashhadu annani yàlla xam na ni bëgg naa la waaye yàlla yit seede na ni bëgg naa la yow rasulullahi yàlla xam na ko yàlla seede na ni bëgg naa la abok ah, te maa ngi lay yëgal ak a bégal ni xol bu sopp Sayyidina Muhammad xol boobu yàpp yaramam xaraam na safara xaraamun alayhi naaru xal bu ahaboo xol bu sopp rasulullahi yàpp yaram ba aram na safara tax mooy ñaari ñaari tukkulóor ya doon bay wala ñaari algérien ya borom ibnu muhayyib ña yooyu sidina muhammad di ko pelloo waaw xawaa kulla majdin lil wara wa jilalati waaw di ko pelloo lu la wax ko rasulullah bañ koy way yonent bi dafa feeñu ki koy garde ki koy garde ni ko am na ñaar ñuy dugg Médine bu ñu agsee Médine ma jug taxaw tos bu ma jugee àdduna bi yam fi ñu def cercle Médine kar leen ne wàññee ko leen ngeen ñibbi ñu ne ñun dina ñëw ba fii di seet suñu soppee ki nga xam ni mu suñu dund lépp dañ ko koo jox ngeen ngeen ñu bëgg a wàññeeku du ñu wàññeeku su ngeen ñu dàqee boor bii daa ñu wëri dugg biir Médine parce que lu ne wax nañ ko rasulullah façon tagg boo xalaat wax nañ ko sayyidina Muhammad nabi yëg loolu yëg ni ñoom bu ñu agsee daañu ko wax loo xam ne nabi dina jug dañ leen mujj rey waaye la ñuy wax ñu nga naan amit na tasdiqihi attention ñu ngi dee mais ñu ngi dee ci dëggu cofeel ci ngir bëgg rasulullah dëggu cofeel ngir bëgg Sayyidina Muhammad waaw sëriñ Bamba la mu waxoon dañuy xeq jismi dañuy sëriñ Tuubaa dafa waxoon sama yaram bi cofeel sama cofeel ci rasulullah yi ngecc na ko man ahmadu ma mënuma am yaram parce que mbëggal gi ci sama cofeel sama am Seydil Haaji ma ne non mu ne fii man ma nekk fii mu ne fële sama dund naka lay teeyee di fa kay fay tibul umru umru indumtu hahuna wa hana alladi law laahu daa sabilu munul ne naka la sama dund di teeyee teeyee fa kay fay tibul umru indumtu hahuna ndee maa ngi sax fii ci Sénégal man Hadj Malick taw hana nekk fële ki nga xam ne law laahu bu nekkuloon ak moom daa sànku asabilu yoon wi bu nekkuloon nag moom àdduna bi sànku ndax la njëkk muy ñëw àdduna la lëm ñii di jaamu ndox ñii di jaamu safara kopp sa morom duma nit ñi wax dëgg Kisra yaakaar nañoo yilif adduna bi wa baata imaanu Kisra wa ka chamli ashaabil kisra xayra mutaimi wa naaru xaamidatul anfaasi min asafin alayhi wa nahru saail ayni min sadami wa saa saawata an gadat buhayratuha wa rudda waariduha bil gaysi xiina dammi ka anna bi naari ma bil maai min baralin xusnan wa bil maai ma bi naari min darabin wal jinnu tahtifu wal anwaaru satiatun wal xaqu yazharu min maanan wa min kalimi ammu wa sammu fal ilaanu basairi lam tusmax wa bariqatu l insaani lam tusami ah mbokk yi bi mu ñëwee ci laa dina leer ñu déparé Médine jaar bi roali yéere nañu ñu def tamatoox def ifraat def xiraan yére nañu seen aj ñëw nañu nag jàkkaarloo kaabatullaahi nga xam ni nag boo ci see nga yëkk ni nag sa diggante yàlla tey dara doxatu fi xajarul aswad ma nga fa te xajarul aswad moo moo euh, la ko tiim mooy baytul maamuur baytul maamuur wax wax nañu ni waxtu bu jot soixante-dix malaaka dugg juróom-ñaar fukki junni malaaka dugg juróom-ñaar fukki junni malaaka génn foofu te malaaka bu génn dootoo duggati ba keroog yàlla yowul buftu waxtu wu jot minute bu jot seconde bu jot tierce bu jot yàllaa bind ci leerug rasulullah ki ay monde yu dul jeex yàllaa ngay bind ci leerug Sayyidina Muhammad ay mbindeef yu dul jeex soixante-dix malaaka juróom-ñaar fukki waxtu wu ñu génn te malaaka bu génn dootoo dugg mbokk yi lépp lu ñu war a ziar fii incha allahu taala ak télévision Futurs Médias dara dara du leen ci ump maa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla gën leen a barkeel euh, gërëm leen ziar leen gërëm bu baax a baax groupe Futurs Médias ñi ñu fi yebal ñëw nañu di aj waaye booleeg ay coono tabarakallahu gis nga Vieux Diouf ci liggéey bu bari bi gis nga alhaji Maawo Cissé alhaji Vieux Diouf alhaji Maawo Cissé alhaji Vieux alhaji Maawo coono yi nga xam ne ñu ngi koy daj ngir bëggal nit ñi ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral euh, gërëm bu baax a baax euh, naskruhum euh, sant leen ci hôtel bii nga xam ni di Fandax Fandax a sultaan ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral Fandax a sultaan waaw yal na yàlla gën leen a barkeel خاصة لمدير هذه الفندق نسأل الله تعالى أن يعطيكم عمرا طويل مع الصحة والعافية رعاكم الله وحفظكم ورعاكم الله وحفظكم من كل بعيد وخريب gërëm bu baax a baax a baax waa Zeye asalaam gërëm waa Zeye firmement waa firmement ñu ngi leen di gërëm ci seen liggéey bu rafet waaye gërëm oustaz Babacar Niang ci taxawaayam ñaanal leen moom itam yal na yàlla gën leen a barkeel ci darajey Seydina Mouhamed euh, maa ngi nuyu nag xaaji Boubacar Gaye euh, di alxaaji Boubacar gay sama xarit sama soppe nga xam ne fii maa ngi moom bokk benn néeg ñaanal ko yàlla ko yàlla yokk dëgëral Xaalid ibnu Walid Diop itam di ñu bokk benn néeg gërëm xaaj Malick Diop magam euh, su baax alxaaji Ghazali Diop ñaanal ko yàlla yokk leeram gërëm bu baax a baax sono fan bintu Diop Adja ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla yàlla barkeel leen euh, mbokk mi noonu maa ngi jéggalu ci kàddu yi bu baax a baax a baax jox leen dig daje émission baa ngoog siira ngoog soppe Seydina Muhammad yi jaaxle woon ngeen yaakaar ne du am maaw ak alaaji maaw ak alaaji vie ni ma munul nag ñëwal nga def siira ndax soppe Seydina Muhammad yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.